Mabouba Diagne jëriñ bi ñu dénk wàllum agriculture souveraineté alimentaire ak élevage xaatim na ab convention ak conseil national de concertation et de coopération des ruraux convention bi nag dafa ñeel coppite yi nga xam ne war nañ ko indi ci loi sylvopastorale bile accord nag ci diggante ñaari parti day jël en compte bëgg-bëgg baykat yi ngir suqali secteur agriculture. Euh, président bi aussi bi ñu defee euh, euh, conseil interministériel bi jox na ma directive pour ma pour ma ak liggéey ak kuréel yi seq mbay mi loolu yëpp moo lay won ne la euh, gouvernement bu bees bi sous le leadership de son excellence de président de la République ak euh, euh, premier ministre bi ñoo ngi liggéey pour soxale mbay mi pour am autosuffisance alimentaire. ngir amal loolu nag docteur Mabouba Diagne jël na ay engagement yu bëri bokk na ci wàññi njëgu engrais yi ci 22 pour cent buñ ko méngaleeg at yi passé wala itam yokku quantité phosphate bi ci lu toll ci 35 000 tonnes. ñu wàññi prix engrais de 22 pour cent dans de la République. son excellence Bassirou jomaay fay ak ak premier ministre bi jàppale bi ñu ma jàppale jox ma 120 milliards pour ma mën a gën a jàppale baykat yi. ba tax na ren ji danañ distribuer 35000 tonnes bu phosphate te loolu duñ ko jaay baykat yi dañ leen koy dañu leen koy jox. Euh, gratuitement. ci seen wàll nag organisation baykat yi ñu ngi rafetlu bu baax ndogal yi nga xam ni autorités yi jël nañ ko ngir amal campagne agricole bu baax. ñu ngi jël engagement itam ci ab programme boo xam ne dañuy indi ay coppite yu am solo ci secteur agriculture. lu ñu waxtaan ak moom mooy bëggu siifante ak moom benn kayit buy mandargal sunu jokko lool nang na ko lool parce que kontaan na lool si lu mu wax lu mu gisee fii waaw renouveler na ko sunu engagement di ko woone seen CNCR gis-gisam mooy fexe ba mbay mbay kër yi mu mun dox. mais pour le moment ñu ngi koy ñu ngi engagé wu ci commission yi di liggéey ak moom. signature bi convention dafa nekk rek beneen pàcc ci dinamique bi nga xam ne gouvernement bi tàmbali ko ngir dem ci li ñuy wax autosuffisance alimentaire nga xam ne yàgg nañ koo wax waaye masuñu see yegg.